Dieng commencé nañoo am ay euh, xabaar yuy firndeel euh, li waral ñu jëlee ko ca bopp euh, kër googee bu ñu sukkandikoo sànq maa ngi koy teewlu ki nga xamante ne moom mooy Babacar Touré bu Kewlo la nga xamante ne joxe na ko ci ay raison ndax gis ngeen tey ci rendu même presse bi am na ñu ko doon tudd di woto boobu nga xamante ni quatre-vingts millions la jar. ne am na ci luy firndeel ni loola waral ba ñu jëlee ko fa am na ñeneen ñu évoqué yeneen raison yoo xam te dafa jëm ci kii ko euh, euh, kii njiitam nekk ci ministère bi ñu dénk wàllu ndox mi di euh, Cheikh Tidiane Dieye dinañ ci taxaw ak le président Siré Sy dinañ ci boole également leneen loo xam te ne dafa aju ci entreprise de presse yeeg jafe-jafe yi leen njatt jamono ji ci ñenn ñi nee su koy euh, comprendre bi ci mujj ngeen xam ko di Abdoulaye Sylla buy Ecotra euh, porte plante ki nga xam te mooy Mamour Ibra Kane Alassane Samba Diop bu i média euh, ci wàllu wéna mel ak la ca Ibra kii di Mamour Ibra Kane tontu dinañ ci taxaw boole ko également Amadou Ba mi ngeen gis jamono ji muy def ay visite ci foyer religieux yi ca Touba gis ngeen kàddu yu mu ci yëkkati woon jàpp ni jotagul wax waaye joxe na rendez-vous ñi nga xamante ne ñooy askan wi ci euh, na mu gisee nguur geeg taxawaay bi loolu di ñu may dinañ taxaw également ci li nga xamante ne ñu ngi cay jëm ndax waxoon nañu bu yàggul dara ne toilettage Euh, euh, lu jëm ci règlement intérieur bu assemblée nationale bi war a may le premier ministre mu ñoo def li nga xam te mooy déclaration de politique générale la te des bëreetul moom ci bopp boppam am na yu ci annoncé ne euh, dinañ ko wax ca penc ma ndax loolu dañ ko diggee ak askan wi fi ñu fekk réew mi moom le premier ministre Ousmane Sonko ak kàddu yu mu yëkki barki Dembo Ndiaye ngeen teewlu ko ci lu jëm ci réseaux sociaux yi voile yeeg ci aju yooyu yëpp incha allah nañ taxaw dinañ wax ci wàllu géopolitique également. ak Jeux olympiques yi nga xam te jamono ji ma ngay am ca France ñu ngi fàttaliku discours bi ci le euh, président de la République yëkkati euh, yooyu yëpp ne su koy déggee ak demam euh, ca Mauritanie fekkee li nga xamante ne mooy installation njiit lu yees ki wala boog ki nga xamante ne moo gagné élection yi fa doon am di euh, Gazouani yooyu ak yeneen ci ay ponk industrialisation euh, ci réew mi taxawaay bi ci ministre bi ñu dénk wàllu commerce am fan la ñu yóbbu ak fi ñu réew mi toll euh, ci wàll wi lañu ñu annoncé également ci ñi fi nekkoon yoroon ne ñu ngi waajal ci am ñu ñu woo ñeneen ñu ñu teg loxo presse bi am nañu ci xëyee tey am na sax ku ñu tudd jamono ji ni mandat d'arrêt international la ñu ko euh, euh, jébbal euh, loolu yëpp incha allah dinañ ci ñëw ak le président de góor góorgóorlu di Siré Sy ma lay nuyu di la ziar bu baax kilifa gi. Mm-hmm. am mbégte àndaat ak yow ci jeudi bi. nuyu la jébbal la nuyoo diaspora beeg Sénégal yi ñu bàyyi xel jamono ji. waaw waaw foofu moom fa la bokk. ah <laughs> waa diaspora moom man fa laa bokk quoi. Euh, diaspora xam nga diaspora ñaari dimension la. Hmm. yaa diaspora bi des ak diaspora bi ñibbisi. boo leen boolee mooy diaspora. Euh, man nag ci diaspora bi ñibbisi bu wula bu ñibbisee gum. <laughs> mais daal ñibbisee gum voilà très bien. Euh, donc Ousmane di la nuyu di la ziar. di nuyu aussi suma mbokk hmm. immigré yëpp. Hmm. sama mbokk diaspora yëpp di leen di yóbbante way Youssou Ndour immigré <laughs> waaw bis bu ñu demee ba xam nga immigré hmm. des fois da ngay am su qu'on appelle le mal du pays lañ naan euh, picc nga ca kaw waaye xel maa nga ca suuf ah. des fois da toog ba si yàgg àdduna dara du la saf ah, ndax réew mu ndax li Youssou Ndour naan dellu réew ma mais doo mën a dellu ndax njaboot géeg ak la cee aju yëpp su boobaa nag tu as mal du pays. or soo man de ni ma daan fajee sama mal du pays. Mm. mooy damay tëj bunt bi. <laughs> teg kasetu band Youssou Ndour ba immigré liggéey la laaj def caaya def siletma tëj bunt bi waaw pàqar ñi <laughs> ba laal plafond bi ba ñaqtooy xepp waaw ba des fois tem gaa yi woote ni daa am lu xew ci kër gi quoi ndax tëb yeeg dal yi quoi <laughs> tem gaa yi wool la et cetera et cetera <laughs> waaw fekk voilà c' est c' comme ça kon donc sama mbokk yi yéen. maa ngi leen jox immigré. liggéey la laaj. ci la Youssou Ndour naan lu neex du doy. Mm. dañ koy dog deg ba ba badeen mm. su ma demee di leen waxtaane <laughs> waaw ñoo ñooy immigré. leen di ziar bu baax. ñu ngi leen di ziar ñu bu baax ci fi ñu mën a nekk ci àdduna. ma bëgg a rek ne immigré bu ñu ko waxee xel yu bëri day dem euh, ci Europe wala Amérique wala Asie. mais immigré bi jiitu. Hmm. mooy fii ci Afrique maanaam euh, l'immigration sur le continent. le continent moo ëpp foofu. Hmm. immigration en dehors du continent ñooñu nag dañ leen di fàtte. maanaam ñi nekk Mali Mauritanie Guinée Maroc et cetera ci biir continent bi dañ leen di fàtte mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont des Sénégalais de la diaspora au même titre que des Sénégalais d'ailleurs disons mm. en Europe en Asie ou dans les Amériques. Mm. donc gars yëpp fu ñu mënti nekk yal na leen yàlla defal tawféex. amiin yaa bi defal leen taysiir. amiin yaa rabbi defal leen ay xéwal gu bari. defal leen wér gi yaram. Mm. te teg loxo bi ci njaboot gi. yaa ngeen jëf kenn du yéen waaw ñu ngi leen di ziar bu baax xam nga ñoom dañuy bàyyi xel fu ne absolument te dañuy safoo programme yi am fii ci kër gi absolument waaw ah, di ci am seeni regard ah di participer aussi à leur manière ci li nga mhm. xamante ne mooy permettre ñu mën a euh, euh, am sa débat intéressant et enrichissant donc ñu ngi leen di ziar bu baax fu ñu mën a nekk ci mhm. réew mi euh, Siré loolu moo ñu may ñu dugg ci actualité bi maa ngi la ko doon dund sànq bi ñuy tàmbali. bett na la bi nga xëyee dégg ni Cheikh Dieng nekkatu directeur général bu ONAS. waaw waaw xam nga nit soo ko xamee. ngeen am fu ngeen jaar. Hmm. te d'ailleurs sax ñu ngi ci woon mooy sunu challenge raw bi xam nga fàtte. waaw waaw fàtte ñu comme dégg déjà assainissement bi on a eu à travailler sur un certain nombre euh, d'activités hein. Hmm. Euh, dans le cadre de Thialanjuraaw mu nekkoon lu ñu war a dem di curé caniveau yi ak égou yeeg yooyu quoi. Hmm. Euh, effectivement ça m'a un peu euh, mais peut-être que comme kenn xamagul exactement de quoi il sagi mm. euh, c'est seulement la décision qui est sortie euh, peut-être on va serrer deux, deux choses oui. à mon avis on choses Euh, disons laytaayu décision bi. Hmm. ak li waral décision bi c'est-à-dire su ma wax laytaayu décision bi mooy les aspects juridiques. et institutionnels. Euh, la ca décision ba loolu xamaguñu lan moo tax quoi mais dama bëgg a rappeler rek ni dans le cadre de état ou dans le cadre de la république dafa am ñetti mbir yoo xam ni président de la république moo ko moom te mooy cëggal guyam Hmm. voilà benn bi mooy larme bi euh, foofu nañuy wax ni euh, c'est le domaine euh, réservé du président maanaam te la ñuy def ci l'armée bi bu ko cay def du tàggu kenn du yëgal kenn comprendre hmm. mbiri boppam la ak li ñu tuddee diplomatie mooy sa chasse gardée maanaam ki muy nommé ambassadeur ki muy nommé consul et cetera loolu affaire am la d' abord ndax soo nekkee ambassadeur avant de représenter d' abord état bi la fi yoon tu es le représentant personnel du président de la ah, république avant d' être même état bi bi ci des mooy les nominations lu foofu il a pouvoir discrétionnaire moom moo tax ab Wade wax naan su ma neexee sax nommé sama chauffeur comprendre là on n'est du point de vue de la morale mais on du point de vue du droit hmm. kon donc lii di nomination fal ak fol lii di diplomatie ca na muy tëddee euh, lii di l'armée ca nañu koy gérer hmm. loolu cëggalugu yu président la moom bu ci jëlee dogal euh, dañ ko koy nangul moom cëram la maintenant mu des ci lan moo motiver ñu appelle droit la motivation d'un ma jàpp ni euh, Serigne Cheikh Cheikh docteur Cheikh Gueye. borom euh, tawfeex waaw borom tawfeex parti tawfeex et puis ñu bokk aussi nekk ci coalition Diomaye en même temps euh, affaire ku ko xam. Hmm. te xam ko ci leneen lu dul politique xam ni ci affaire assainissement hydraulique aménagement environnement nga ko xamee ndax moom géographe de formation la. c'est ça il a même un doctorat en géographie. c'est kon donc li ñu ko jox techniquement techniquement lu mu xam la. ci ci la daan yëngu ca man ba ma koy xam jamonoy Ablaye Wade ba jamono ji ça fait plus de vingt ans man ci yooyu laa ko njëkk a xamee sax ci affaire politique. Hmm. affaire assainissement affaire yooyu. Euh, donc euh, comme hmm. euh, comme trois mois mënuñu ci tëgg bilan. oui d'un gouvernement à plus forte raison en trois mois munuñu ci. tëgg aussi benn bilan direction et donc euh, je ne pense pas que le fait qu'il soit relevé de ses fonctions euh, relève d'une forme d'incompétence disons-le comme ça parce que li ñu ko dénk xam na ko mën na ko kon peut-être que du ci ni muy surtout que Cheikh ku ko xam-xam ni homme de terrain la c'est-à-dire que nit la koo xam ni nekk ci terrain bi mooy ëpp sax nekk ci bureau yi comprendre nga moom nitu waaw moom nitu terrain la quoi nitu au contact yooyu kon donc je ne doute pas et je pense en attendant que ñuy xam lan la hmm. euh, du ce n'est pas par ses compétences parce que ci nawet bi bi mu ñëwee ah avant muy teru ñëpp gis nañ ni euh, les actions et les initiatives qui ont été prises euh, dans le cadre de l'assainissement et dans le cadre du cadre de vie mais en général administration hmm. administration cas yu demee nii su amee dans l'administration surtout dans les hautes fonctions euh, il peut s'agir de ce qu'on pourrait appeler une faute lourde en faute droit administratif lourde, ouais. Euh, si l'autorité estime que dans les actes dans le cadre des actes que tu poses en tant que DG ou ministre que li nga def moom mi ngi koy jàppee comme faute lourde en général la sanction mooy dañuy lay relever de tes fonctions en général mën na nekk comme par exemple un commissaire de police ñu def benn faute comme par exemple manifestation ñu waroon ko encadrer ñu tirer fa bal si une faute lourde oh et cetera et cetera day dal préfet day dal euh, administration territoriale day dal commandement territorial day dal day dal day dal et donc en attendant que les choses kii euh, je pense que ce qui est reproché euh, au docteur Cheikh Dieng peut-être mm. que l'autorité l'a qualifié de faute lourde mais lan la kenn xamagul parce que le gouvernement euh, le porte-parole le ministre porte-parole du gouvernement n'en a pas encore euh, justement wax ji mooy ndax dina ko euh, wax aussi bien kii mais en général en administration. du ñuy wax ci yooyu. parce que parce que c'est une mesure individuelle en fait ce qu'on appelle une mesure individuelle c'est-à-dire que l'autorité administrative n'a pas à se justifier surtout en l'occurrence le chef de l'État. parce qu'il est dans son domaine discrétionnaire il est dans son pouvoir discrétionnaire bu lay nommer il n'a pas à se justifier lu tax yow mu la fiy nommer mais bu la fiy jëlee tamit il n'a pas à se justifier euh, lu tax mu la fiy jëlee moo tax ma jàpp euh, la meilleure attitude oui. Euh, comme c'est une mesure individuelle ki tax mesure bi jóg notifier nañ ko moom peut-être notif peut-être notifier nañ ko les griefs yu ñu koy reproché ba tax mu kii bi et que euh, lu moom la concerné quoi. et que à son xaar nga ko moom it. Euh, non je n'en sais pas moo tax man la xaw ma quoi man xam ni ñëpp dañuy yeewoo. d'ailleurs sax j'ai cru comprendre que même Cheikh docteur Cheikh décision bi daf ko bett. parce que on m'a dit qu'il était à Touba. Touba c'est au retour.